mbokk yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàllal suñuy loxo ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom ak man te mooy borom sañ-sañ képp koo xam ne lislaam mooy saw yoon mooy sa mooy sa taxawaay ci ci àdduna si suñ borom gën laa dëgëral gën laa kàttanal ba lépp loo xam ne yéene nga koo def ci lislaam nga def ko ci defen koy njot sa njot te daje ci ngërëmul suñ borom Cheikh Mamadou Mountakha bi nga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 kon war nañ di jàngat dund dund saxaaba yi di ca dellu ngir di ko mën a dundee ñun tam suñ diine ji nga suñu lislaam ji nga xam ne moom lañ nekk ci du taf ci dellin woo xam ne dana dana dana ñàkk dana dana dëgër lool danañu dimbale itam ba lépp loo xam ne sumb nañ ko wala ñu jëm ca ñu mën koo def defee yéen koy suñu jot ndax danañ gis ne saxaaba yi ñu jot jàngat ñëpp kenn ku nekk la la àggale fa nga àgg mooy ngëm yàlla gu wér ak dëggu ca la nga nekk ak doyloo suñ borom ba amul dara loo mën a taxaw ci sa kanam lépp loo xam ne gis nga ne jublu nga ca dara du mën a dox sa digganteeg moom lu dul rek nga àgg ca na ko na nga ko yaakaare loola nag mooy li nga xam ne itam moom la Sëriñ bëgg ci ci ci murit yi nañ doon ñoo xam ne dañuy amuk dog yor ak ngëm gu wér doon ñoo xam ne itam lépp loo xam ne danañ ko song nañ ci nañ jàpp ne danañ ko war a mën a àggale nañ ko bëgg a àggale ci kaw ndimbalu suñu borom mi nga xam ne moom lañ doyloo moom lañu gëm loola nag moo tax tey jii ba tey ñu dellusiwaat di waxtaane kenn ci saxaaba yi muy ku ñuy tuddee Amr ibnu Jamuh moom nekkoon na ci bokk ci kilifa yi Madina bokkoon itam ci sang yi nga xam ne ñoo nekk ci ci bokkoon itam ci sang yi xeet bi nga xam ne moom ci la bokkoon muy bani salamata waaye nag moom moomu dafa am doomam joo xam ne moo ko njëkk doon ab jullit muy Muaas ibnu Amr Muaas moomu nag bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa xamee ne su yonent bi sallallahu alayhi mi ngi wone lislaam di ci di ko woote ba te dàkk aj gi di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo aj si mu wax dàkkoon aj googee nag am ñu mu ca waxtaanaloon ci ñi nga xam ne ñoo dëkk Madina mu am fukk mu am juróom-ñaar fukk yoo xam ne dañ koo nanguloon juróom-ñaar fukk yee nag xamoon nañ ne am na ku yonent bi sallallahu alayhi wa yabaloon ci ñoom muy Mus'ab ibn Umayr Mus'ab ibn Umayr mi nga xam ne mën nañoo wax ne moo njëkk a nekk ambassadeur lislaam ci li nga xam ne mooy l'islam ji ñu nekk nga xamee ne nag moom doomam ji nag mooy Mu'aas ibn Amr dafa bokkoon ci juróom-ñaar fukk yooyee bi nga xamee ne nag am na ñoom li nga xam ne moom lañ baaxoo woon ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi mad ñooy kilifa yi arab yi ci dëkk bu ñu nekk mooy kilifa yi dañuy wut seen xeramu bopp boo xam ne dañ koy dañ koy def ci seen kër bokkut ak xeram bi nga xam ne nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp koy bokk nga xam ne suñu amee am ndaje wala ñu am loo xam ne ab xew wala dañ koy teg bu ko defee ñëpp ñëw ci moom nag moom amru nu jamono bi dafa amoon aw xeram boo xam ne da koo defoon tuddee ko itam manaaf nekk ci biir këram la ko defoon moom ko defee nag doomam jooju nga xam ne mooy Muaas nu amr amoon xaritam boo xam ne itam mooy Muaas ibnu Jabal mi nga xam ne xam nañ ko ci taxawaayam ci bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee Yaman ak la nga xam ne def na ko fa ak taxawaay bu rëy bi nga xam ne taxaw na ko fa moom mu ñaari Muaas yooyu nag liñ daa def mooy bu guddi jotee ñu jóg dem fekk xërëm woowee nga xam ne moom la amr ibnu Jamal def ñu jël ko buñ ko jëlee sànni ko ci benn am pax moo xam ne pax la moo xam ne li nga xam ne mooy desiti doomu aadama yi ak li nga xam ne moom la ñuy sànni lépp ci pax moomee lañ ko daa sànni ñu bu ñëwee sànni xërëm woowee nag ci pax moomee bu ñu ko defee bu bu am lu xëyee xool ana xërëmam moo du ko gis bu koy wër di ko wër ba gis ko ci pax moomee nga xam ne ay lu ne ca ay ay ay ay pax moo pax la moo xam ne ña nga ca def rek li nga xam ne mooy yi ñuy sànni yooyu fa nekk bu bu ko defee mu ñëw bu ko ñëwee jël ko bu ko jëlee daal di koy raxas ba mu set daal di koy tuur laj ku lañ daal di daal di tegaat ko fa mu nga xam ne fa la ko tegoon ñoom it suñu di jotee ñu ñëwaat beneen yoon jëlaat xërëm ba waaye benn yoon bii nag moom dañoo jël xërëm ba tabbal ko ci am pax moo xam ne mooy pax moom mu nga xam ne ci lay nii sànni mbalit yi waaye nag yemuñ ca loolu dañ koo boole ak xaj boo xam ne dafa dee takk ko takk ko sànni leen ci biir pax moomee bi nga xamee ne am na mu jëmoo xayit si na ànd ak laaj xool xërëm woowee gisu ko mu am naqar lool daa di di di ko wër ba gis ko fekk ko ñu sànni ko ci ak kambu boo ci ak kamb goo xam ne kambu mbadit na boole ko ak xaj bu dee yeew yeew leen dugal leen foofe bi ko ba mu ko defee nag bi loolu amee nag moom mu mer lool ndax xam na ne kii la jàppe ne mooy kilifaam te toroxal nañ ko toroxal toroxal ji toll nii def nañ ko itam jëf ju toll nii loolu nag bi mu amee mu xam ne comme moom la jàpp ne mooy kilifaam xanaa war naa mën a aar boppam loola nag tax mu jël jaaseem daal di koy takk ci doq li nga xam ne mooy xërëm boobee mu defoon nekkoon nag bu fekkee ne njariñ am nga benn njariñ tam kon yaakaar naa war ngaa mën a ja war ngaa a aar sa bopp ci jaasi ji nga xam ne moom laa la jox bi mu defee loolu nag xëy suba fekkaat fekk fekk xërëm ci tax moomee ak xaj boobee ñu ko boole yeewa yeewa bañ ko booleel yeew sànni leen ci fi nga xam ne mooy kàmm goo xam ne mbalit rek lañ fay def bi ko amee nag ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Madina gis ko muy jëlaat xërëmam woowee ci biir pax moomee nga xam ne dañ koo sànni maanaam mbalit rek lañ cey def ñu yemuñ ci dugal ko fa waaye dañ koo boole ak xaj bu dee yeew leen sànni leen ci pax pax moomee bi mu xëyee nag di di di ko seet ba gis ko am ay kilifa yoo xam ne ñu ngi nekkoon Madina ñu laaj ne waaw kii moom ak tolluwaayam bi mu yor ak fi mu nekk ak niñ ko jàppee lépp tey ñu def aw xërëmam nii mu mu mu mu di ko wër di ca sonn coono bu toll nii xanaa moom daa laajut am xelam xanaa moom dafa jëfandikoo wut am xelam xanaa moom dafa xoolut li nga xam ne mooy li li war a nekk ak li wër sa nekk bi nga xamee ne ñu ngi waxataan loolu ñu ngi waxe ñu ngi waxtaan loolu ñu ngi waxe loolu nag ñoom ñu daal koy. bi bi bi mu déggee loolu mu daal di dogu nag ci bëgg a nekk ab jullit ci biñ ko xamalee lan mooy lislaam xamal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawaayam xamal ko itam ak ak jullit mooy lan xamal ko itam suñ borom mi nga xam ne mooy borom sañ-sañ te mooy borom ak man-man te kenn mun a def loo xam ne ump na ko kenn mënu koo tëy itam ñu daal di koy bañ waxtaanee moom ci loolu nag moom mu daal di dellu si nag bëgg a daal di doon ab jullit waaye bi nga xamee ne doon na jullit dafa yàlla da ko bindoon ci mu doon ku tabe ku tabe lool ci joxe alalam ba loolu amee nag bi mu déggee bi ñëwee ci lislaam alalam jëm amoon jëpp mu fas yéene koo def ci biir lislaam ak mbokk jullitam bi loolu nag tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis muy laaj ne waaye yéen ñi nga xam ne yéen bokk ci giiru salam bani salamata ndax am ngeen xam ngeen kan mooy seenub sang ñu ko ah kay am na koy koo xam ne moo doonoon suñu sang nga xam ne moo jiitu woon ci ci maam yi kooku mooy ku ñuy wax Aljadd ibnu Xays waaye nag moom dafa nekkoon koo xam ne ku naye nay la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ndax xam ngeen benn feebar bu gën a boo xam ne moo gën a bon ak nay ki nga xam ne mooy seenu sang day tey mooy ki nga xam ne boo ko xoolee boppam dafa dafa bopp bi dafa dafa dafa fees de la kawar ba noppi itam yàlla bind ko ci mu doon ab teeyam leer nañi bi loolu amee nag yonent bi sallallahu alayhi xam le kon ne kii seen sang kay mooy amru bnu jamoo bi ko def def loolu amee nag yonent maanaam amru moomi comme ku la woon def na alalam jëpp ci lislaam ak ak mbokk jullitam waaye bëgg caa yam da caa bëgg boole itam ni nga xam ne ni la suñ borom waxoon ne innamal mu'minuuna lazina aamanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim mu daal di xam ne itam joxe na alalam waaye jëmmam des na fi te jël alal jëmmam ji te war na ko joxe mu daal di dogu nag ci bëgg dugg ci xare yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi daa amal waaye moom am na ngànt ndax dafa doonoon koo xam ne kuy soox la soox bu metti bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man day dama bëgg a dugg dama bi badar amee mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne ko man de dama bëggoon bokk ci xeex bi mu ne ko waaye ay doomam jiitu ko ci yonent bi la jiitu yonent bi jiitu ko ci yonent bi xamal ko ne ko moom kat damaa jàpp dañoo xam dañoo jàpp ne ak melokaan yi nga xam ne moo nekk ci moom da nga ko war a xamal ne ko moom jihaad waru ko ndax am na ngànt waaye nag bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ko loolu moom muy topp ci rek topp ci moom di ko di ko wax rek nag maa bëgg dem ci xare bi naa bëgg dem ci xare bi yonent bi daal di koy digal ne ko toogal màddina gii ndax xam nañ ne boo fi toogee itam ya xéewal ga ñee di am ñi dugg ci biir xare ba yowit it moom ngay am ndax ndigal nga fi toogee loola nag ba bi nga xamee ne xasuutu Uhud ñëw na mu daal di jëw ci yonent bi salaa alayhi wa sallam ne ko xam na ne ay doomam dana ko fi jiitu waaye mu ñëw ci bi sallallahu alayhi wa sallam kat man de xam naa ne sama doom yi dañoo bëgg duma ma ànd ak yow mukk ci benn xare looloo tax ñuy ñëw di wax lii ñuy wax waaye man dey làgg gii nga xam ne moo nekk ci man ak dox yun wii may doxee doxeenu bu metti dama ko bëgg doxe ëllëg ci àjjana dama bëgg a dox bu ëllëgee sama làgg gii ma doxe ko ci biir àjjana loola nag yonent bi sallallahu alayhi di koy digal ko kon mën ngaa bokk ci xaswatu uxud bi nga xamee ne bokk xaswatu uxud bi nga xamee ne mu ngi ci jël na ngànnaayam ngir jëm ci xeex ba lam ñaan suñu borom mooy ne ko yàlla yàlla nga boole ci suhadaa yi yi nga xam ne ñooy des ci xare bi tey ñooy des ci xare bi bu ma delluwaat mukk sama kër bi mu defee loolu nag te ñaan ga mu doon ñaan goo xam ne gu dëgg woon ci moom ku gë koo xam ne ku doy loo li muy wax na suñ borom nangul ko ñaan googee nga xam ne moom la moom la doon ñaan xama digal yonent bi digal maanaam ña bi ko ñaan bi ko ñaan ñaan googee bi mu ko ñaanee suñ borom nag suñ borom nangul ko ko mu am itam bi mu amee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam wax ne amru bnu jamoox mii ak abdullahi noo amr ñoom ñaar damaa bëgg ñu boole leen benn benn benn bàmmeel ñu du ñu boo dugaloo la leen fa ñoom ñaar bi nga xamee ne yàlla dogal nañ boole leen dugal leen ñoom ñaar ci benn bàmmeel ñu toog ba mu yàgg lu mat ñeent fukki at ak yoo xam ne toog nañ ko am indonation yoo boo xam ne am na ba mu amee nag yàlla dogal ndox ma bari na ba sulli ay bàmmeel yu bari bi mu sullee ay bàmmeel yu bari ñi ñi jullit yi bëgg a wone seen wormaal doomu aadama ndax ni ñu ko suñ borom digale ñu jël yax yooyu nga xam ne moom moom la inondation boobu sulli dem di ko ngir tuxal ko yóbbu ko ci beneen place ba nga xamee ne loolu am na itam amru ibnu jamaah bokkoon na ca ñañ suul foofa ak abdullah ibnu amr bi xamee ne loolu am na nag ki nga xam ne mooy jaabir ibnu abdullah moom ci saxaaba boobu nga xam ne xam nañ ko ci taxawaayam ci lislaam te doonoon di di dooni doon doomi ab Abdullahi ibn Amr mu daal di delluwaat mu daal di dem ci barab yooyu nga xam ne moom lañ suuloon maanaam ki nga xam ne mooy baayam ak ki nga xam ne moo doonoon gorob baayam ndax Amr ibn Jamoo maanaam rakki wala mbokkum du mbokkum jigéenum Abdullahi ibn bi nu Arab moom la dencoon bi nga xamee ne ñëw na fekk bàmmeel ba gis ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ ci boole woon suul muy am amru bu nu jëm amru bu nu jëmoo ak abdullahi ne amru mu fekk leen dara sikkut ci ñoom mu mel ni dañuy nelaw te juróom toog nañ juróom ñeent fukki at ak juróom benn loola nag moo nay won ne kon yaakaar naa ne maanaam dëggu ci la nga nekk te tam jaral la lu nekk suñ borom ku ko ko defal ñu ko waxee woon ci ajjuma ji weesu suñ borom dana la fay teraanga joo xam ne ba ba àdduna di tukki teraanga ji du fay te nit ñi danañ ko di dégg te di ko fàttalikuwaat kon loola mooy wone ne li am solo rek moo jox sa borom sa lépp tam doon jox joxin wu dëggu te doon doxin wu tam wér ni muy dëggu mooy na doon loo xam ne defoo ko ngir kenn la nga koy def rek ngir yàlla ni muy dëggu itam mooy mu doon loo xam ne la la la la nga ca lam la jàngal ak nam la doxloo noonu ngay doxe ndax loola mooy tekki sa dëggu bu fekkee ne da nga wane ne gëm naa ba noppi te bu ni ngay doxee bokkut ak ni nga xam ne moom la la la ngay topp sant booba yaakaar naa dëggu ga itam duñ ko mën a wax ne dëgg gu wér la kon suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ yàlla nañu dimbale ban doon ñoo xam ne ñu dëggu la ñuy doon ci li nga xam ne moom lañ woote ñu ca dëgër lañuy doon itam ñu ca yor pas-pas bu bu dëggu lañ ci lañ lañ cay doxee loola mooy tax lañ ci bëgg ñu am ko ci yàlla nañ ko suñ borom defal moom jàpp na ko yem na ko mën na ko rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna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 innahu huwa alxafuru rahim wa sallu ala nabiyikum sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam